et pourquoi vous parlez de manque de respect. parce que Doumbouya c'est un putschiste moom bon foofu noonu dëkk Guinée amul démocratie. il faut pas politique yi. ba Bassirou lu ma bëgg a wax xaaral di nga Bassirou Diomaye Faye lu muy prôné yëpp liberté démocratie. il faut que nit yi am état de droit. c'est le di seeti koo xamante ne moom la ko tout le contraire lay def. Mm-hmm. je pense que il faut pas euh, réduire euh, la visite de Bassirou Diomaye sous l'angle du président c'est-à-dire que. il ne s'agit pas le président en tant que tel mais il s'agit tout simplement d'une question de l'unité africaine qui nous intéresse ce qui intéresse en quelque sorte le président Diomaye l'unité africaine parce que le président Diomaye a toujours mm -hmm. voulu instaurer ça booy xool la façon de s'habiller euh, quelle que soit la nature du régime parce que y a plusieurs régimes régime boo xam ne ku fi nekk am ni nga ak ni nga ñëwee mais lui ce qui l'intéresse c'est pas ça c'est un détail quoi. ah façon de savoir loolu c'est un non non non non non ça non c'est-à-dire ça reflète en réalité ce incarne. Hmm? cest dire que li ngay li ngay incarner dafa war a refléter ci sa personnalité ci ci sa habillement au moins donc pour man bu ko réduire si angulu euh, président bi nga xamante ni moo jël au pouvoir dafa nekk par un coup d'état bu ko réduire si angle boobu il faut lever un peu la barre envoyer les choses du côté positif parce que bu fa demee seeti euh, donc ay africain moom moom la fa seeti euh, sénégalais également am ñoo xam ne ñoom ñoo fa nekk et cetera.